summa isti naa dunaa topp wéeru hiin wanuy wéeru muy façon wéeru ba nga xam ne jullit bi dina julli di ko wéeru façon booba tabtulu bihi salaatu julli ga mën na caa yàqoo mooy ki nga xam ne xaadiril xiyaami am na kàttan ak taxaw mu bëgg lu yomb di wéeru di julli kooku ak julleem day yàqu fanta bi na nga yeewu ci loolu yow mi jàng sa diine huwa ba tey moom wéeru am na ca tamit beneen façon boo xam ne ca di julli di wéeru mën na yàq julli julli googee nag nga xam ne beneen façon wéeru lañ la cay joxoñ te wéeru ga mën a yàq sa julli isti naadu naa mooy nu wéeru wéeru bu baax li say in ci dara bàyyeeku ca rek mel ni ku ca tëdd ba nga xam ne nasxutu dina nu daanu inda suqootihi bu loola daanoo kon wéeru ëpp na daanaka da nga ca tëdd rek bàyyiku ca rek mu ne façon wéeru win boowu tamit bu ko jullikat bi defee julli gi day yàqu ni lañ ko jànge la daaman ca ñi nga xam ne yuxsitu dañuy sàmmonteeg aqi diine seen aqi diine ba tey mu des beneen xeetu wéeru boo xam ne du yàqu julli waaye dañ koo sikk gënut waaye nag du yàqu julli nag moom la lay wax nii amma isa lam nakku nasxutu bu dee dañu caa wéeru waaye sunu boroom desal na ci sunu yaram wérgu yaram gunu jural met goo xam ne walaw saqata saa say u su fekkoonte ne daanu na lanu wéeru nu tëb ne cataŋ ne ñàkka daanu ndax met ndax wérgu yaram mel noonu cig wérgu yaram ba pare nag di wéeru julli googa sib nañ ko kon kay wéeru na ñàkk pexe tax mu wéeru waaye benn xeetu bëgg lu noppale walu tax kiy julli di wéeru ndax jaamu yàlla nag coona sacane cane sacane te nga man ko nag wax dëgg yàlla di nangoo yenu coono booba daa baax lool ci jullit nag kon xeetu wéeru win woowu tamit farawaw nettali nañu nettali bu bàyyi ko ca waram xam-xam ya ne makruhun lu ñu sib la wa in tujis bàyyi na foofu mi ngi lay jàngalaat feneen wa in tujis bu dee daganal nga li xaadirin ca ka nga xam ne am na kàttan goo xam ne alal xiyaam mën na caa taxawe di julli na mu ware nga daganal ca moom julloo saxoo mu toog di julli mu ne su boobaa falantu laam kenn du la yedd ki am kàttan nag taxaw di julli moo xam farata la moo xam julleeg naafila la nga gis ko mu toog di julli nga ne ah lee mu def dagan na mu ne kenn du la yedd de waaye nag fan ci gan julli tan na fulan xanaa ca julleeg naafila bu dee julleeg naafila moom kenn du la ca yedd nit ki mën naa toog di julli julleeg naafila mën naa taxaw di julli julleeg naafila mën na gàpparu di julli julleeg naafila kenn du ko yedd waaye nag am na lu ciy topp ko lakin woo waaye nag fii xawli kulli aalimi ca waxi mbooleem ñay woroomi xam-xam jëmm jooju yuqu daa dees na ko fay loxoo ñeel ko ca julli googa bi nisfi ajril xaa'imi yoolab julleeb ka taxaw xaaj ba lay am de moom mi mën a taxaw ba pare toog di julli ca naafi la yoolab eh, xaajab yoolab ka taxaw di juli lay am kon nag bu dee julleeg farata dañ ko koy tere ndax mën na ko waaye bu dee julleeg naafi la doon lente ne mën na ko may nañ ko mu toog di ko def waaye nag xaajab yool la cay am man ka xam ne jalasaa gàppuru di julli la man wa jawasoo daganal nañ ca moom du xoolaxaa mu tàmbalee ko julli ga gàppuru daldi tàmbali julli bu demee ba yëg ni wérgeeram may na ko ko suma yàqoo mu topp mu jóg ba de ginnaaw yëg gi mu yëg yaram ci jëmmam mu jóg àggalee ko julli ga xisan na nga xiyaas mu ne may nañu jullit bi mu yëg ne yaramam neexul mu toog tàmbali julli dem di julli ba ci biir mu yëg ne wér-gu-yaramam may na ko ko mu àggalee ko julleek taxaw mu ne yépp ay baax dina baax na mu commencé na mu àggalee bàyyi na kooku mu ne ba tey wa in daxal taxaa bu dee jullikat bi dugg na ci julli gi yow jullit tàmbali nga julli te wa anta yow bi ngay tàmbalee julli soo xiyaam ab taxawaay nga ko tàmbalee wa bax du ginnaaw loolu nag nga dem ba ci biir nga yëg ne yaram wi amatul doole yëg nga wéradi ci biir julli gi tajlisu nga toog àggale ko julli ga falasta saa malaam kenn du la ci yedd dina baax tàmbalee nga ko wérgu yaram dem ba ci biir yëg ne yaram wi ma ngay wéradi nga mujj toog gàppru àggalee ko julli ga julli ga dina baax boo ci jëkke àggalee ko moroom ja dana baax ndeysaan yàlla am yërmande mu ne ñaari façon xeeti julli yi mu la mujj wax nag bu ci ne dana baax la ko mën a teree baax la lay waaj a nii in lam takkun xanaa bu nekkul moom jullit bi daaxilaan di bi ca julli ga bi niyatil xiyaami ci yéenay taxaw dong ba julli jeex bu dee yéenay taxaw dong nag la yéene woon ba muy julli bu demee ba ci biir mu yëg ne wérut tamit faw nag mu naxanteeg boppam ba eggali julli ga ci taxawaay ndax moo ko yéene woon sinon yéene jooja day yàqu su defee boo bëggee jafe-jafe yooyu yépp du la dal yow jullikat bi booy julli daal neel fas naa yéene julli waxtu sàngam jaamoo ko sama boroom wala fas naa yéene naafila jaamu sama boroom num la fekk rek nga wéyal noona boo mën a dee nga def nanga man te du tee sa julli baax moo gën xam-xam mook ndoxayam bu tuutee tilim mu ne bu fekkente ne ba mu cay dugg daal noonu na man dama fas yéene taxaw lépp lépp lépp duma ci toog dara fara dem ba ci biir ak mën di dab ko mu war a toog julli ga day yàqu ndax yéene waaliwu ko woon kon bu dee yéene taxaw rek la yoroon ci xolam nag fayum naxu ña ngi koy tere nag al juloosu mu toog maanaam mu gàpparu abada ba faw di ko eggalee julli ga nag ndax yéene jaa ko waral kon nooy def ba jafe-jafe yooyu du la dal booy julli daal neel fas naa yéene jaamu sama boroom rek yem ca ndeysaan faslun li ab dog la sukkira bopp ña ngay jàngale ci biir fii ci biir dog bi xaddaa u fawaiti feyak ka nga xam ne ay julli da ko raw wa ma yataallaqu bihi ak la nga xam ne aju na ci fay bori julli hmm, yow mi jàng sa diine yaa ngi dugg ci bunt bu rëy bi nag yaa ngi jàng li gën a jafe nag yaa ngi jàng li nga xam ne mooy wurusu ngalam bi or blanc baa ngi nii nag xam-xamu fiq bi ñuy tuddee or bii nga commencé jàng nag muy bunt bu bees bii nag mooy or blanc ba mooy bëgg na waloore kon dinañ la koy defal sax ay leçon yu gàtt ndax bu guddee dina la sonal la ko jàngal ndànk ba lépp leer ci sa bopp kon bunt bii di ñëw foofu la ñuy tàmbalee ci or balan bi ndeysaan yal na nu yàlla mooy digga ak topp